fasloon lii ab dog la fii faraidihi ci faratay tiim haddu faraidi tayamumi limab faratay tiim duri ca lañu xam ca nañu ko jàngalee yan juróom ñetti farata la indal lax laxdari ca aji dégg ja fiq di abdurahman laxdari ba ca jiitu fa niyatun mooy yéene suma sahidun topp nag nga daldi fakk ca suuf sa taxuraa pakk bu laab wa darbatun ak rëpp ga ngay rëpp loxo ya ola muy rëpp gu jëkk ga ngay teg loxo ya ca suuf farata la bi naf din ci pàkk ba umira ci nañu ko diglee loolu farata la kasaaka niki noona mashul wajhi masaa ga ngay masaa xar kanam ba masaa googa nag dañ lay jàngal niñ koy defe doo ko jàll dangay ngay teg sa loxol ndijoor ca kaw xar kanam ba ca tiwaaram yay laal jëba ci wet ak ndijoorub xar bi nga tàmbalee fa mu jaar ca jaar ci kaw bakkan bi jaar ci kaw digg gémmiñ gi wàcc eh, ba ca ronu sikkim ba loxoob càmmoñ ba tamit loxoob càmmoñ ba nga jaarale ko ca wet ak càmmoñab ca wet ak nga jaarale ko noonu doxale ko noonu muy ñaari masa nga ñëwaat indiwaat loxo ndijoor bi mu jaaroon fa mu jaaroon muy ñetti masa xarkanam ba pare nga ca tiim ñetti masa lay doon ca xarkanam ba côté ndijoor bàyyi am ñaar bopp càmmoñ ba benn lay am pare nga ca xarkanam ba wal day ni ak ñaari yoxo ya des leen di masa masa ga nga leen di masa nag minal asaabihi yaa ngay tàmbalee ca cati waaram ya muy ca cati weya ilal koo xay ni ba egsi fa ngay takk sa montre diggante boobu lépp ca tiim ca ba fa ngay takk sa montre ca tiim loolu farata la waaye nag doo foofa de da ngay xëcc ba ca conca la diggante fi ngay takk sa montre ba ca conca ya nag diggante boobu moom sunna la bu ñuy jàngale sunna ya dinañ ca ñëw wal fawru ak gaaw loo jege nga teg ca la ca des bu fa jaarale seneen soxla jëfe ko noonu ca tiim farata la woddu xoolu ak tabbi ga ngay tabbi fil aw xaati ca waxtu wa waxtu wi jot nga doog a jëf tiim farata la ci tiim wa minu bokk na ca farata ya littisaalu nga jokkale tiim ba bi salaati ca julli ga nga xam ne boo tiimee rekk dalal di liqaam kàbbar tabbi ci julli ga bu fa seneen soxla dox loolu tamit bokk na ca faratay tiim amma sahiidu ndaal nag fa ngay pak teg sa say loxo tiim bërëb booba jëmmi la ngay teg sa loxo tiim ca foofu wa loole turaabu suuf lay doon wa tóobu mbaa ban wal hajaru mbaa ay doj laa tartaaboo bu leen ca werante ndimo li ñuy tiime joxoñ nañ la ko léegi ndimu loolu nag mën naa doon doj yu weex mbaa doj yu xonq mbaa doj yu ñuul mbaa suuf su dëgër mbaa suuf su nooy mbaa ban bu dëgër mbaa ban bu nooy wasal ju ak lay ak ab lay bu layee ba am bërëb yu tooy mën nga caa teg sa loxo tiim ca wal xadd xaadu ak ndox muy daw dawaan bariwul ba es man caa jàpp waaye nag ma ngay daw dawaan mënees na caa teg ay loxo tiim ca jaa fi li nii lañ ko jàngalee ca toxal ga nii la dikke wana waa ak lu nirook loolu ka sabxatin lu mel ni xorom mënees na caa tiim waram li ak beeñ muy suuf su nooy nepp mënees na caa tiim walam yajus daganul nag es di tiim walam yajus tayamumun daganul benn yoon es di tiim biir xusu bi ci ay bant ay bant kenn du ca teg ay yoxo di ca tiim wal gisil mat boo xan ak ciment bu ñu togg muy joos bu ñu togg xeeti doj yoo xam ne dañ leen a jëlaat toggaat leen ba am ca lu mel ni karo mbaa yeneen xeeti façon sunguf su boobaa su ca mën a tiim bi xawli noq bi ci waxi tànneef ya nga xam ne géeju nañu ci xam-xamu fiq sëriñ Tuubaa na